Euh, Sénégal est particulier média yi Sénégal effectivement, il faut que effectivement patron de presse bi fi wax na pour nga créer média amul presque contrainte mais média médias, bu vous ni dafa am day am même entreprise privée di ñëw ci moom dafa entreprise de presse entreprise de presse nag boo ko nekkee nekk ci benn secteur secteur bi li nga xamante ni mooy yoon wi da am pour di ko respecter te loolu lu ci njëkk en tout cas benn benn bi ci njëkk mooy lu ñuy woowee convention collective mooy maanaam payoor gi nattukaayu payoor gi nga xamante ni moom nga warloo yow ak ñi leen liggéeyal ndax journalisme ak yeneen métier yu bëri ñoo yem Sénégal tey boo amee euh, ku la tabaxal sa kër amna na bo boo moy wone ni nangam li mom ala kulli hal mënoo ko ko ñàkk fay. léegi nak mën ngeen a waxtaan jëm ci lu gëna ñong lool lool moy li ñu woowee convention collective Manam, xaatim la lo xamante patronat bi daf ko xaatim ak état bi mais en plus ñun syndicat bi dañu pousse état bi bañu jël lu ñu woowee arrêté d'extension. arrêté d'extension, bobu tay mo moo tax xam nga état du signer convention collective mais arrêté d'extension, mo tax tay état si boppam obligés obligé respecter la convention Si vous métiers, par exemple ci l'université, yi wala si structure, structures yi xam de communication nous, état nous, nous ñu ngi leen sur la base de la convention pourtant a signé la convention mais donc c'est parce qu'il y' a eu cet arrêté d'extension. donc nous, dem dit nga a état bi si état bi si boppam ak i kuréelam ñu ngi respecté convention mais patron de presse wala de lu ci ëpp ci nous, mais foofu responsabilité ñaar la dañuy waxante deug responsabilité bu ñeuk moy patron de presse ak état bi nga xamante ni contrôlé wu len pour di xam ndax ñi ñu ngi warloog yoon ba paré bu fekkee ni warloog ñoom yoon mu xam nu muy def ak ñom manam mo xam da leen di xañ publicité mo xam day tëj seen compte mo xam da leen di wax ni yeen vous n'avez pas le droit di jël ben revenu lolu état lolu responsabilité état la mais deuxième responsabilité aussi nañ ko wax ni deug moy ñun ñi ñëpp ndax ñun ñi ñëpp ñoy nangu léeg-léeg yenn euh, comment dire conditions conditions da nga koy dénoncer metti na nag nga dénoncer condition ñu jaare fa dàq la wala nga dénoncer condition ñu jaare fa jël sa morom promouvoir ko yow ñu am lu def loolu tamit dafay am c'est la vérité mais li am ba des mooy dañ ne situation yooyu bu amee dañuy dellu ci sa état parce que état rek moo am doole tey xëy ne bon inspection du travail yi nekk ci réew mi yëpp dem leen ci médias yi ngeen andil ma rapport dans 15 jours ñu andil ko rapport dans 15 jours mu gis ni chiffres yi jeune reporter yi wax ak réalité bi méngoo nañ état jël décision bu jëlee décision képp ku yor entreprise de presse di nga obligé respecté ko. waaw du reporter rek man maa ngi nii gagné naa procès depuis 3 ans maa ngi nii ba léegi kenn fay ko ma mais loolu beneen affaire la mais au moins d' abord man dama am cofeel ci reporter yi nga xamante ni benn dañuy dem ba benn instant ñu toog ne ah non nous il faut ñu nous ko pas vous exemple mais c'est parce que daf ma neex jeunes Sénégal jeunes mais dem nañ ba toog benn instant ñu nous nous ne ñun depuis Duremer, ñu depuis Fouquet. mais Fouquet at boo ko dundu nit La nous compte que non seulement salaire yi ñu c'est bien indécent amuñu Nous amuñu sax numéro presse. mais nit ki liggéey ba retraité dem IPRES fekk fa zéro lan moo lay dundal bu waxuma ko nag parce que dama singali waa ji xaw ko sax yàlla xam na ni mosuma ko gis bu ma ko gisoon bu ma ko xàmmee mais dama koy wax pour jëmmal acte bi nga xamante ne jeunes yooyu def nañ ko ils sont dans un média numérique média numérique yu si bëri amuñu ay syndicat amuñu représentation syndicale ils sont dans un ils sont jeunes mais terewul fexe nañ ba booloo malgré que patron yi nag dañu am ay seeni pexe da ngay ñëw bu ñu gisee gars yi booloo dañ ciy rocc kenn am na ñu def ak moom bu ko defee mbir ma tas mais yooyu yëpp ñoom ñu ngi koy sóoraale te ñu ngi ñafe ñu tam ñu ngi ci gunge incha allah defe nañ ni ça va un tilt pour que yeneen médias yi aussi jeunes yi mën a ñafe parce que bu état toogee banque loo xam tamit il faut benn instant ñun ñu yëngal garab gi man li dalal sama xel mooy li may teg bët parce que jafe-jafe yooyu wax nañ ko premier mai 2024 wax nañ ko premier mai 2023 1er mai 2022 mille vingt wax nañ ko mai 2019. bu surtout jafé jafé bi jëm ci walu payoru journaliste ak liguey kat yi ak cameraman amna bien entendu 2019 ba légui amna amna am fi fond fond d'appui dafa nañ carte de presse xam nga jox nañ ko rek doole euh, jël nañ ay yenn décision yi lolou baxna kenn du ko xép mais li nga xamante moy mooy guuy gi moy nit ñi xamni journaliste d'abord

li nga xamante ne daal moom mën nañ koo rafetlu mooy ci wàllum campagne électorale ñi nga xamante ne ñoom la yàlla dënk tey nguur gi ci biir campagne bi c'est vrai bind ñu ko seen programme mais man dégg naa parce que man da ngay wax dëgg rek te yàlla tax dégg naa njiitu réew mi actuel ci benn interview moom si boppam mu décrire la situation que vivent les jeunes reporters n'est-ce pas wax ni le problème c'est pas de défiscaliser wala du joxe ay amnistie fiscale mais dañu war a xool lu tax jeune reporter ak jeune technicien yi seen dundin jafe kon ku wax loolu mën ngeen am yaakaar surtout les jeunes comme nee nañ président xale ak jeune reporter xale mais war na mën a gars et puis ñu fexe ba mbir mi mais déjà il faut qu'on pose les problèmes il faut savoir que les problèmes euh, ont traversé plusieurs années surtout le problème le problème principal. Le problème principal, c'est la précarité des jeunes reporters et des jeunes techniciens. Cela a une euh, explication. L'explication, c'est que l'État est absent dans le contrôle effectif des entreprises de presse. C'est ça la vérité. Vous vous rappelez, lorsqu'en 2019, nous plaidions pour qu'il y ait une haute autorité de régulation avec les pouvoirs élargis. Eh bien, parmi ces pouvoirs, nous avions voulu qu'il y ait un pouvoir de contrôle euh, du respect des engagements sociaux des entreprises vis-à-vis de leurs travailleurs. Comment vous, vous pouvez imaginer un travailleur malade Tous les jours que j'ai fait, moi, mon téléphone, tous les jours que j'ai fait, un journaliste ou un technicien ou un caméraman me fait appeler ou m'appelle parce qu'il vit une situation d'indigence médicale. Et après, on est obligé d'appeler à gauche, à droite, de nous cotiser, etc. pour essayer de le payer parce qu'il doit faire une opération. Y compris même des agents qui sont dans des entreprises très bien cotées en termes de nom et d'image. La dernière fois, il y a un camion qui me dit Ouais, moi je suis malade, je dois me faire opérer. Mais bon, je lui dis Ah, mais toi tu travailles Non, ouais, ouais, mais bon. Les gars m'ont donné 150 000. La RH m'a donné 150 000 et m'a demandé d'aller trouver le reste. Qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi ce système-là donc les journalistes, surtout les reporters, sont confrontés à d'énormes difficultés. L'État a la clé pour régler ce problème. Parce que l'État a le monopole de la puissance dans, dans, dans une république. Et nous sommes dans une république. L'État peut mettre en place cet organe de régulation avec des pouvoirs élargis, mais peut mettre en branle son administration sociale, c'est-à-dire les inspecteurs du travail, pour qu'ils fassent le point et sur la base de, de leurs conclusions, l'État prendra les décisions qu'il faut prendre. Donc, pour moi, il faut, nous avons assez tiré sur la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, heureusement que les reporters eux-mêmes ont fait une étude pour confirmer tout ce qu'on disait de leur situation. Maintenant, la plaidoirie, elle a été assez faite. On doit passer aux actions. Mais la responsabilité, la convention collective, c'est un mécanisme légal mis en place dans un État pour réguler les rémunérations selon les secteurs. C'est ça une convention collective. Au moins les salaires minimums. Dans notre cas de la presse, il y, a une il y avait une convention déjà. Il ne faut pas croire, faire croire que c'est une nouveauté. Non, la première convention existait depuis 1992. Cette convention a été révisée n'est-ce pas En 2017, en marge du vote de la loi sur le code de la presse. Parce qu'entre 2012 et 2017, entre 92 et 2017, la vie a, les coûts de la vie ont évolué. Donc, aujourd'hui, la situation, c'est qu'il y a des entreprises qui continuent à appliquer l'ancienne convention de 92, mais sont sont tannés. Et il y a des entreprises qui ne prennent les journalistes et les techniciens que comme des vulgaires prestataires à qui il faut payer parfois même moins que le SMIC. C'est ça la vérité. D'accord L'État a fait ce qu'il devait faire par rapport à la Convention en partie. Parce que l'État a pris l'arrêt d'extension, a pris l'arrêté d'extension et a publié la Convention au journal officiel. Et l'État s'applique, s'auto-applique cette Convention à travers les universités et autres établissements publics. Mais l'État n'a pas veillé à ce que les médias ou les entreprises de presse aussi respectent cette Convention. Et là, les responsabilités sont partagées. En réalité, on ne doit même pas parler de responsabilités partagées. Parce que, bon, c'est vrai, individuellement pris, le jeune reporter ou le jeune caméraman, il n'a peut-être, bon, passé par... Il a une responsabilité, mais la responsabilité, est minime. Donc, il faut que l'État vienne en, euh, lui vienne en secours, parce qu'on dit souvent, entre le fort et le faible, c'est le contrat qui lie, mais c'est la loi qui libère. Donc l'État doit, quand il, constate que une situation n'est pas bien, l'État se doit de prendre la bonne décision.